képp koo xam ne bëgg nañoo topp bu abonné ci seen bii rek di Mbacke Kadior TV luñ dugale ci dana ko am en exclusivité ñu daal di wax ab tiis bu am ki Burkina Faso ndax ab attaque moo fa daal di am lu mu néew néew ñaar fukki doomu aadama ñu fi ñàkk seen bakkan fukki juróom-ñeent ay takk der lañu di ay gendre mu kenn ka civil la lu nu mel na mu ngi am tey jëlee ci dimanche yem fukki fan ñeent ci weerum novembre bu nu ne. attaque boobu nag ginnaaw bi nga xam ne mu ngi amee ca benn gox bu yooyu ci sum buñ sukkandikoo ci bilan bi nga xam ne moom lañ daal di fesalagum si ministère bi nga xam ne moo saytu wàllum kaaraange gi foofu kii Burkina Faso nee nañ nag jamono ji ñu ngay wër sax wër ga pareegut waaye daal bilan provisoire maanaam bilan négandiku biñ joxagum ñaar fukki doomu dama yoo xam ne daal ñàkk nañ fa seen bakkan jamono ji am na ñoo xam ne ba tey ay mu la ñu ngi leen di wër ndax ñu ngi leen di woo waaye mën a suñ leen a jot